salaamaaleykum mbokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte di ànd ak yéen saa su nekk comme ni ngeen ko gisee nag saa su actualité amee dañu wàcc ci terrain bi daal di waxtaan ak askan wi ñu wax ñu rek loolee lan nag lañ ko daal di jàngatee. li nga xamante ne si nag moo di leader bu boobe boobee Ousmane Sonko dañ ko daal di radié si liste électorale yi ak coalition bi nga xamante ne si moo di coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag ñu daal di génne waa taxaw Sénégal ci boobule coalition. ñu bëggoon a xam askan wi ban jàngal lañ ci am ñu ngi ne kenn ki nga xamante ne ñu ngi nii toog ak Xaadim waxtaan ak moom Xaadim na nga def. maa ngi si jàmm bu baax. Eh, maa ngi am jàmm waaw du nuyu ñëpp. leader bu Pastef bi Ousmane Sonko ñu daal di koy rajee ci list électorale yi naka nga ko jàngatee. waaw ah, loolu lu metti la parce que bu ñu ñun ki ñu am yaakaar moo ñu toogal si suñu réew léegi lim ñu lim ñu wax ak lim fu ñu mën a yóbbu ñu egg foofu parce que instant bi réew mi metti na. te Ousmane Sonko rek ñun moom lañ jàpp comme solution mu ñëw pour mën a defar senegal mais nag gis nañ ne comme def nañ ko liñ koy def jaay ko doole xam nga sacrifier ak mag yàlla fa loolu sénégalais yëpp ci teg seen bët mais nag yàlla moom mooy àtte yàlla yàlla leeral yëpp waaw te Ousmane nit la koo xamante ne am na ay principe ci réew mi ñun ndaw ñi yëpp suñu yaakaar ci moom lañ ko defoon te ba léegi nii suñu yaakaar du jug ci moom. ñoom nañ wax liñ bëgg rek waaye ñun tamit am nañ sañ-sañu wax tamit ñun liñ bëgg ñoom dañ ko bëgg génn ci liste électorale bi amul problème mais ñun Ousmane Sonko génne ko suñu xol du nekk lu yomb. Sonko bu fekkee da génne nañ ko ci liste électorale ndax yaa nga ne élection yu yu am calme dina fi am. ah peut-être mun na calmer mun na bañ a calmer parce que parce que tey kenn ku nekk da nga am danga am ay droit xam nga loo xamante ne wàllu wàllu wàllu yoon la ñu ngi koy topp te am nañ ay avocat yoo xamante ne ñoom ñooy dox si wàllu woowu ñoom bu fekkente ne liñ def jaaru na am nañ droit dem ci yoon def seen recours waaw wax wax tamit liñ xalaat lu nekk mën naa am parce que tey boo jëlee nit koo xamante ne amul lenn lenn lenn loo xam ne lu maal la lu mu def si réew mi ah jiite ay jeunes ñëpp yaakaar ko ñëpp bëgg ko même boo ko waree def leen li war war ngaa xalaat war ngaa xalaat daal bu baax a baax. Euh, bokk na ci li sabab mbir yi mooy jugement par contumace bu bi nga xamante ne si ci mbiru Sweet Beauté ñenn ci ministre de la justice daal di xam ne ne boobu les jugement ah bokkut ak dara ak li nga xamante ne si moom lañ koy jàpp moom lañ koy jàppee jamono ji ñi nga xamante ne si moo lay avocat Sonko ak ñenn ñoo xam seen xam-xam daal dinay xam kii ci wàllum droit. ñoom ñu daal ne li nga xamante ne si moo di jugement par contimence boobu ginnaaw ba jàpp na li la passé loolu dañ ko anéantir. waaw léegi moom lan lañ koy toppee carrément pour yow nga baaxe ma ko waaw ah parce que tey jii bu fekkente ne nit ki da nga ko tuumaal ne ko da nga da nga def viol léegi nga topp loolu dem ba dem ba li nga ko doon toppee xam ne amul léegi ñu ne bakkan yi si rot affaire yooyu noonu yooyu collé motif wax. léegi ana ki ana ki jiine woon viole bi ne moom moo violé woon no dañ ko violé léegi ana kooku lan moo taxul ñoom mënuñu ko indi teg ko parce que comme moom moo créé lii yëpp ndax amaana bu waxul woon ne dañ ko viole te mu te du dëgg lii yëpp du am kenn du dee mais loolu yëpp moom moo ko sabab ba pare après rocceeku ndànk léegi Ousmane daal mooy mooy mooy mooy lii daal maanaam nu ma nu ma la ko mën a expliquer mooy ku ma amul nday xam nga yow loolu yéen sénégalais yëpp xam ne loolu. yanul maanaam parce que nit ki mënoo ne da yow dañ maa violé ba pare ñu dem xool dem ci wàllum yoon justice bi génn na viol amatul ah menace de mort amul dara amul léegi après nga bàyyi léegi fenoon loolu yëpp léegi nag andi kii daal di jël lépp teg si kawam kon ku ma am ndey ku ma amul ndey la rek loolu rek lañ ko jàppe waaw. Hmm? Hmm? non jugement par contumace yooyu yooyu yooyu yëpp ay ay ay dóor la rek parce que nit ki ni ñu ko jëlee nii ne dafa sàcc téléphone mënoon nañ ko jëlee noonu bu njëkk mënoon nañ ko jëlee noonu bu njëkk mu ñëw ñu at ñu atte ko ci yoon parce que loolu amul njariñ parce que nit ki nga xamante ne yow xam nga fu mu dëkk mun nga dem waaxu dem jëli ko sa bopp kooku jërul sujet ci ay contumace ak yooyu demal jëli ko ñëw sujet ko loolu la. ñu daal di wax euh, ci mbiru waa coalition Yewwi Askan Wi. ñu daal di génnee ñi nga xamante ne si moo di waa taxawu Sénégal nag nga ko jàngatee. ñu génne leen ci. ci bi. pour lan. non kooku génn na bu yàgg ñooñ ñoo génn seen bopp bu yàgg instant bi moom xam nga li gars yi li ñëpp di wax di ko rumbanaat ñëpp ko xam ñooñu génn nañ bu yàgg ndax Ousmane Ousmane si jëmmi boppam président Ousmane Sonko si jëm boppam moom xamoon na loolu waaw pion la yu tegoon rek ñu koy joué. léegi xam na boo demee ba ci fin bi lépp day feeñ rek loolu kase la. da nga jàpp ni waa taxaw Sénégal dañoo trahir Ousmane Sonko. Ousmane Sonko kay amul ku ko trahirul peuple beeg ñëpp ko trahir waaw te lim ñuy xeexal yëpp suñu njariñ la mais nag mais ci benn fànn dañoo amul doole ji amuñu doole ji ndax nañ nañ ñu ñu war a wax waxuñu léegi dañuy bàyyi ba jiyee am ñu génn bëgg di wax. nga ne peuple bi yëpp ñoo ko trahir. waaw ah, bi yëpp ñoo ko trahir parce que tey jii am na nu ñu doon taxawee mais tey. kenn ku nekk yaa ngi tal sa bopp kenn ku nekk yaa ngi rawale sa bopp naan ay lii lii lii te presque lii yëpp ñun ñoo ko sooge ñoo wàccoon si mbedd mi tey jii te booba dañ doon wax ne dañuy jëli Ousmane rek ñu wàcc ñun ñëpp taxaw léegi ñu jëli ko ñun ñëpp ñu toog kon ñun ñoo njëkk a traay tey euh, grève de la faim bi nga xamante ne si leader Pastef mu ngi koy amal yow tey bu amoon loo koy conseillé danga koy lan nga koy lan lay doon ndax ndaxte moom. mu bëgg nekk njiital reew du amal grève de la faim loolu dafay joué ci wér gu yaram. xam nga tamit loolu naqar xëy na mun na ko def naqar mun na ko teg ak fi mu bëggoon yóbbu Sénégal te mu xam ne maanaam am na ñeneen ñu bëgg téye loxoom pour seppi ko ci ndab li xëy na loolu moo tax mais tamit bon bu ma ko doon conseillé ma naa ko ne lekk na naan ndax àdduna jeexul te yemul si benn bés. waaw te lu mu yàgg-yàgg dina xool si Nelson Mandela xool si papaam Ablaye Wade tëj nañ ko ba taay Nelson Mandela tëj nañ ko fii teewul mu génn nekk président yóbbu Afrique Sud fu kenn fu ñëpp yaakaar yaakaarul woon loolu lépp mun na am na na muñ xam ne yàlla buur day nattu jaam ki mu gën a bëgg rek lay nattu te xëy na fi mu ko jaaralee nii dafa bëgg mu xam yoon boobu ba ëllëg bu ko yàlla tegee ñu nekk ci foofu mu mën leen a dimbale xam ne fii kat lu metti la wala fii lu demee nii la ndax presque ñi ngay dégg li ñëpp ñu leen di tudd ci réew mi ñu ci bëri jaar nañ fa waaw mais yéenewuñ ko kenn nag waaw te képp ku fa nekk yàlla na suñu borom génn si jàmm waaw man su ko doon conseillé ma naan ko mu lekk naan bàyyi garab bi parce que tamit juril la te am na ci yoo xamante ne boo ci ñàkkee sa bakkan da xaru waaw mais tamit ñu ko tëj nan bàyyi waa këram di ko indi lekk mais amee. voilà ñu ngi ne nag daal di toog ak Omar moom ñu ngi ko daal di fekk mu yoxo photo kii di Ousmane Sonko daal ci bind focus 2024 sëñ bi. sant bu baax waaw alhamdulilah waaw Sonko man dama ko bëgg. waaw dañu koo bëgg ndax ndaw ñi moom moo ñu war a mën a jàppale ëllëg ndax ñun suñu avenir lépp mooy Sonko dañ koo jaay doole nag waaw jëpp ndaw bu jàppale sa avenir ëllëg war na tegu ci boo norme jàppale Sonko la ñi fi nekk ñi dañ ñuy nax rek dañ koo jaay doole nag waaye daan xam ne yàlla suñu borom moo la ëpp doole waaw Sonko ma la Sénégal Afrique gépp moo ko war a defar waaw moo war a mooy sël ndaw bi nga xam si tey ma volontaire war a defal Afrique Sonko du pour Sénégal pour Afrique la waaw ñoom loolu nag mënaguñ koo xam ba juddoo ba tey ay politiciens yi fi ne dañu rek yaa ma dégg sa yi fi nekk ñoo jiira sa maam jiira sa yi papa jiira jiira ñu actuellement nii réew mi neexut réew mi naxar na trop ndaw ñu amuñu liggéey mag ñu xëyuñu góontuñu waaw loolu nag pour mu dañ fi Sonko mii tey moo fi war a jëlee loolu waaw ndax dañuy nax képp ko fi nekk rek sa bopp nga fi nekkal muy ñëpp nag muy ministre yeeg président beeg ñëpp seen i doom ak seen i famille doo nga leen tax a jóg waaw loolu nag dafay war a jeex képp ku fi nekkati war a jàppale jeunesse bi jàppale ndaw ñi jàppale mag ñi liggéey am fi yaa ngi ma dégg nootaange ñu jëlee ko fi jaay doole ñu jëlee ko fi ndax Sonko dañ koo jaay doole looloo war a jeex ci Afrique waaw Afrique képp dañoo war a boole seen doole doon benn nga ni Sonko dañ dañ koy dindi si liste électorale yi. loolu dañ ko wax rek waaye duñ ko nangu loolu wax la rek waaw Macky day tànt rek waaye jàpp na xam ne loolu mënta na sax ndax bu ko defee élection du am saa bu taxawee na sonk du dem suur boobu élection du am ci réew bi ñun pare nañ ñun ndaw ñëpp pare nañ ndax sonk dañ koo bëgg ndax duñ investir suñu lépp suñu alal suñu lépp suñu doole ci moom ñu xëy ba koo sibira loolu mënta na Sénégal réewu yoon la waaw problème ak ñoom ñun ak état la waaw lu ma laaj pare nañ ndax ñun ay ndaw lañ ñu bëgg suñu réew toog suñu réew volontaire pour liggéey yaa ma dégg pour soqali suñu réew kon ñun dañoo war a jàppale Sonko bi dañ ko bëgg mooy suñu candidat 2024 ba 2029 sax mooy suñu candidat moom lañ bëgg tey moo lañ bëggal ëllëg waaw Macky nag bu nee Sonko du def moom jàpp ne élection doom ci réew mi waaw Euh, coalition bi nga xamante ne si moo di yeewu askan wi te waa taxawu Sénégal bu ñoom Barthélemy Dias daal si bokkoon ñoom ñu daal di génn ci coalition boobu génn leen ci coalition. ñoom ñoo ñoom daanaka ay ay Macky la rek ay leader Macky Sall la ñoom ñëpp dañoo nar dañoo war dañoo pare pour war Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko moom daan xam ne ñun ndawi Sénégal dañ koo bëgg ñun coalition sax arrangé wu ndax dañoo war buñ buñ buñ sañoon dem ñun ak jël ko balaa deux heures ñu door ko deux cent pour cent la koy door Macky waaw Macky Sall maanaam Pastef xëjut ci Macky Sall waxuma la Macky Sall xëjut ci moom waaw dañoo Sonko la tax maanaam ñu ñu ñu ñu bëgg a tas parti mooy dañoo xam seen bopp Sonko tey bu fu tegoon ak ginaar sax laa wax ci réew mi balaa deux heures dañuy jël réew mi waaw Macky Sall ku ku ku Sonko ne watal leen ko kooku day jël réew mi loolu Macky xam na loolu tax mu tas parti bëgg a tas parti bi waaye loolu mënta ne waaw loolu xam na ne sax mënta ne. parti loolu loolu waaw tas nañ waaye mais élection da am juróom rek waaw ndax ñu dañoo pare dañoo pare pour lépp lu mu laaj ñu jox ko ndax duñ xeex ba egsi fii ñu bëgg ak ak faatu yëpp yàq ci ñu yàq suñu lépp yàq suñu xaalis yàq suñu doole ñu xëy xëy ba ko naxasal kon loolu démocratie amul ci réew mi yaa ngi ma dégg waaye ñu ñun dañoo pare pour lépp jàpp nañ ñëpp nag leader yi Pastef yëpp jàpp nañ leen waaye loolu ñu xoqutaluñu ñu ñun dañoo pare pour jàkkaarloog Macky Sall bu jàppee ni combat bi jeex na rek mi ngi nax boppam Ousmane Sonko moom bëgg a nekk candidat bëgg a bëgg a nekk président wante jamono ji mu nekk si prison bi di amal grève de la faim. waaw loolu c'est normal c'est normal mu def grève de la faim ndax dañ koo jaay doole dañ koo jaay doole mais di ko di ko noot di noot ay noonu ay ay ñoñom waaw loolu nag mooy réew mi amut si siis waaye nag ñun ñun daal pare nañ te mais nag ñu ngi koy jaar fi ñu ko war a jaar nag doole xeex bi xeexu bopp la actuellement nii. du génn ci teel bi taal ay pono yooyu waaw strass bi ñu teg mooy bopp lañu xeexal fi mu doole la fin boobu nag du ko jural ay conséquences ci wàllu wér-gu-yaramam. moom loolu moom am na Ousmane am na médecin fi mu doon ku koy xool ci wàllum saytu wér-gu-yaram kooku moom dañ ko bàyyi ak loolu waaye daal ñoo ci gannaawam waaw bu ko tëyee ñoo ci gannaawam fii ba 2024 bu ko tëyee ñoo ci gannaawam pare nañ pour jàkkaaroo Macky Sall Ousmane Sonko mooy président 2024 ñun loolu lañ paree ñun. soo amoon la koy conseillé da nga koy wax mu continuer grève bi wala mu arrêté grève oh, waaw mais lool moom droit am la loolu dañ koy bàyyi moom ndax moom droit am la waaw. waaw waaw bu sonnee tey lu ko dal ñooma Ousmane Sonko bu dee ñoom ñoo ko rey waaw lu ko dal ñooma loolu daal la am lu ma jiwax te loolu nag moo doon lu ma naqar loo xam ne nag faaw ma génn ko loo tax ma génn ko tey jii wasalaam. ak Xadim Ndiaye. nga jàngatee li nga xamante ne si moo di leader Pastef ñu daal koy génne ci euh, liste électorale bi. ah xanaa lu doy waar rek lu naqari nag jeunesse bi lu métti lu met métti naqari jeunesse bi waaw te muy lu doy waar te teguñu ko fenn lu ci jaay rek fi nga ko xam ne réew mi ñun ndaw ñi ñoo ko moom réew mi ñun jeunesse bi ñoo fi nekk kon lépp lu waay di bëgg na nga ànd ak jeunesse bi taxawu leen moom Macky Sall na xam ne moom dem na. kon jërudut jërudut muy muy anékabel kenn waaw ba tax muy téye Sonko di ko tëj en plus di dox yeneen moment ji moom non non ñun d'accord loolu moom comme que jeexal na ngoon na jeex na dem na dem na dem bàyyi ñoo ki ñu bëgg ñun ñu teg ko ci suñ kanam mu nekkal ñu si ndax instant bii réew mi nit ñi sonn nan dund gi métti na liggéey bi amatul doy na war waaw ñu bëgg nag pour l'instant nii nii ñun dañoo bëgg leneen lu bees lan sola lu benn solo te Sonko bi ñun dañoo am ci moom yaakaar am ci moom yaakaar lan def ñu yaakaar ju rëy nag ba tey jii nii yaakaar ji dañu de yaakaar ji dañu kon nan daay xel la ñun pour l'instant nii ñun pare nañ pour teg fi Sonko ak doon Macky Sall nag lu mu ci bañu bañu ñu ko ci bu ko neexee na tëj su ko neexee na def lu ko neex mais 2024 bu bokk Sonko bokkut élection du am loolu la lay la am ci lu may teg ngeen di ko def bu bu Sonko bokkut élection du am 2024 loolu leer na fan nga teg ni Sonko bu bokk élection du am. ma ko teg mooy ñun jeunesse bi ñun ñun ñoo réew mi ñun ñoo ñun ñoo tax ñuy wax réew mi te ñun anduñoo Macky Sall képp ku fi Macky yow ñun lépp lu bokk ci APR bu demoon ak ginaar élection sax day perdre ñun anduñoo benn APR jeunesse bi Sonko lañ àndal tey moo la àndal ëllëg te ku fi Sonko teg sax kooku la ñëwalal loolu leer na foofu la nga ko teg ñun pare nañ pour lépp. pour ku Sonko ànd rek ña nga ca ñun bu ko neexee nag mu def lu ko neex mais APR pare na ci réew pare na fi. coalition bi nga xamante ne moo di coalition yeewu askan wi ñu daal ciy génnee ñi nga xamante ne moo di waa taxaw Sénégal wante ni ki démb nag ki nga xamante ne moo di Barthélémy Dias nekk maire bu Dakar moom tamit mu daal di génne Abbas Fall bu passé bi nga xamante moo nekkoon adjoint maire daa fa tekk bokk taxaw. waaw ñooñu moom lu ma wax ñoom ndax ñooñu ñoom deret di góor dafa des ñoom benn ndax fii leen taxaw ànd ak ñun wax ñu lu dal suñu xel alaafee ñoom lan lan la xeex ñoom ñoom ni dawaat foofu wutuwaat wutuwaat foofu noonu kon ñoom mel na ne kon ñoom ay wax ñoom dañoo gëmuñu seen bopp ñoom dañuy war te ñun ànd ñoo koy war ñun dañoo bëgg ku bëgg réew ñu ànd ak yow ci réew mi. jaas mii fi mu toog nii tey bu doon jimmi boppam donc dafa toog maire ba bu nekk ne bu doon moom kese du fa nekk ñun ñoo ko fa teg te ba nga fa teg ci Sonko la nga fa tegee te moom wér na ko ne bu élection mairie amaa doon tey jii nii ñaam mu ñàkk mairie bi ndax moom amul mbooloo mu ko wotee pour mairie kon na ko bàyyi xel baax war nañu nag mais ku war ren ba déwén mu jig la dañ la koo jiñ nan ndox ñii ci jaan ci suuf waaw kii ci kaw yàgg yàgg doon ndox day ñu ñëpp moom na bàyyi xel ne ñun jeunesse bi pare na ñun pour jëlee leen fi ñëpp te képp ku ànd ak Macky Sall réew mi doo doo fi dekkee dara ku ànd ak Macky réew mi doo fi dekk dara ak ko ñun pare ñun ñun ndaw ñi dañ bëgg ku yor suñu réew mi jàppale ñu yërëm ñu dimbali ñu te loolu lañ bëgg te loolu la ñu wër te tam ci Sonko lañ ko yaakaaree waaw ci Sonko lañ ko yaakaaree Sonko bi ñu ko yaakaaree nag dañu ñaan yàlla su ma defal ko jàmm ba lii ñuy teg dem lépp su borom oyofal ko yàlla nag gëmu wut mu ngi ni tekk di xool mais képp ko yaakaar ne yaa sa doole ba di ko jaay doomu aadama bi su moom mi ngi taxaw di xool ëllëg ëllëg nag. comme neex nga toog sob añ taal mais ëllëg fa nga añee ji yàlla rek moo xam waaw élection yi ñëwagul lu na xañ ne fi mais nañ jàpp Sonko ñun mooy suñu candidat tey mooy suñu candidat ëllëg moom lañ gëm moom lañ bëgg te moom lañ wóolu ci réew mi tamit moo ñu ci doy. waa Khalifa Sall ñu daal leen euh, dugalaat ñoom ñu mën a bokk ci élection yi. Karim Wade Khalifa Sall ñoom dañoo xamal seen bopp rek ñoom bu xamal seen bopp duñu wax sa waxi élection xam nga li ñu war a wax ñoom na leen woowaat atta leen atta leen yaay dégg bu baax attal leen ba leer nañ ci bopp loolu bëgg dem ma démb maa ngi seetaan benn émission mooy Oustaz Aliou Sall mooy laaj ba xam si milliards dañ leen ko may woo déet c'est normal ñu laaj ñu laaj loolu Khalifa Sall ak Aliou Sall ak Karim Meïssa Wade ñoom dañ leen taxal ay milliards yu du jeex depuis Karim Meïssa Wade li nguuru Macky Sall yëpp amu ci jàmm ba démb bëgg démb ñu ñu leen ne leen jégal na leen mais damay laaj man. ñoom ñi leen jégal ñoo moom milliards yi leen daqal wala ñun Sonko bi ñoo moom milliards yi bu fekkente ne ñoom dañuy farfalo ñu wax Sonko mi ñu taxu ji milliard laalul milliard te doo kenn dara nga jaay ko doo ko ki ki ngay daqal ay ay yaa ko lekk ah dë ma ko depuis ay at jaaru kii nga tëj ko ay at ah amul jàmm léegi ba démb nga génnee ne ne ñii ñii kat ah defutuñ dara noon man d'accord ma loolu ñoom na nga ko asee bopp ñoom mënuñoo yow réew mi ñoom luñ avertir dem dañuy perdre duñ gañ am réew ci ëllëg bu toog dañ leen topp ñun ñoom suñu xaajal may ñu leen ko leer na ñi leen koy may nag seen bopp dong ci la nekk leer na. si grève de la faim bi ñun am nañ ci aw naqar trop ndax bu demee ba nar a lor doomu aadama ah loolu gënaluñu te dégg tamit dégg naa ci lu bari maa ngi di lu information di seetaan mais li ma dégg yëpp tamit mën naa ci jàpp benn benn laa ci mën a wax muy comme que dafa wooroon ci bisub àjjuma ah ñuy jàpp ko yóbbu ko bi ñu ko jàpp yóbbu ko doog war a jot ak ma nekk tubaab bi sax ba muy jàpp suñuy maam ba waree lekk dana jox nga lekk léegi nag kon ñoom bu doog bu doog jotee war na ko man a jox mu dog mais defuñu ko da tax moom mu continué guerre d'affaires ci ñoom la loolu droit am la waaye dañu tamit da ngay conseillé bu ñu sañoon mu bàyyi ndax wérgu yaram moom moo ñu gën a ñun loolu mën am ñun xeex bi ñun ñu ngi fi di ko xeex dawuñu ci daw ñu ngi fi ñun ak moom ñun kii dam ko bëgg waaw te yàlla rek moo tax ñu ko wax bëggee wu ko ngir leneen jërëjëf. maa ngi fi maa ngi ci jàmm euh, Badara Sonko niñ ko ni ma ko jàngatee ni ñu ko defee ci liste électorale bi loolu moom nguuru Macky Sall yàgg na ci lool noonu mais loolu lu mën a ñàkk la ci jamono ji nguur goo xamante ne saa boo jógee nit ñi xam fi nga jëm. kooku war ngaa xool beneen yoon wooy jaar warut bi nii parce lii lii du mbetteel ñëpp xalaat nañ ko ci moom defoon na ko fi Karim Wade def na ko fi Khalifa Sall tey Sonko la mujjee kon nguuru Macky sal bii nii war naa xolaat boppam vraiment ci ni muy doxalee askanam di néewal doole askan ak di xeexe di xeexe yoon te yoon bu fi nekkee pour ñun dañ ko war a yemale ñun ñëpp ñu yem ci yoon mais moom dafa jël yoon di xool ñoo xamante ne maanaam ñoom la ko jagleel muy dal seen kaw te yoon neex te xeexal te mooy li dala Sonko nii. justice dafa jeng. non justice bi moom ñëpp xam nañ ne moom dafa féete côté que justice boo xamante ni moom luñ xalaat rek ne moom di ko teg opposant rek di nga ko teg du ànd ak opposant benn yoon justice musta ànd ak opposant lu dul pouvoir rek lay àndal pour tout le justice dafa war a yemale ñëpp pouvoir ak opposant mu xamante ne lii mooy yoon ñëpp di ci tënku parce que nit ki mënoo ñu jàpp ko def ko mandat dépôt jugé guñu ko benn daan tegugut ci kawam ngay tas ab parti ba pare di ko génne ci liste électorale te justice dogalagut te lii may gis nii bu bu justice bi mën naa appliqué li liñ liñ proposé ñoom waa xaw ma préfet bi la xaw ma nu mu demee noonu justice mën naa ànd ak moom ci loolu noonu te loolu du yoon ñoom war nañoo xaar ba justice teg ak daanam ba pare ñu doog a mën a appliqué seen i loi ne kat loi nangam ak nangam moo ne moo nangam ci lii ñu mën a comprendre mais justice dogalagut dara yow ngay teg nit di di di di di ko dindi ci liste électorale te bu ci di dañ ko dindi ci liste ci loolu baaxul ci réew ñu ngi ñu ngi nasaxal démocratie ci Macky Sall mi lii moo ko fi commencé te moo ko fi moom moom ci loolu la nekk ba léegi nii. doon Karim Wade ak Khalifa Sall tey moo bëgg a dal ci kaw Ousmane Sonko ba sax sax ñoom ñaar ñooñee di Karim Wade ak Khalifa Sall dugalal nañ ñoom dinañ mën nekk candidat si mais Sonko du ñoom buñ bëggee doon ay candidat loolu yaakaar naa peuple Sénégal moom léegi dafatuñu moom ñun peuple Sénégal ñun ñëpp ñu ngi xam dil yi di gars yi di doxal ñëpp xam nañ ko parce que ba ñu woote ay dialogue national ñoom ñuy dem ak yooyu noonu Sonko waxoon na leen dialogue bi dialogue ko dil la te dil boobu moo boo pare ñoom yaakaar na seen mbir baax na ñu kompaloo Sonko dindi boo ko dindi Sonko ci kii bi. Sonko tamit warutoon dem wuyu ji. Sonko non warutoon na wuyu ji parce que si Macky Sall dialogue ñu ak moom benn yoon am na dialogue boo xam te woote woon nañ ko ban fi demee dialogue ba lañ ca waxoon ci dialogue ba defuñu dara bu ñëwaat waat dialogue gon am na ne bon dañ leen poye yoon njëkk na waxee defuñu ko gon noonu duñ jëm dialogue bi loolu am nañ ci am nañ ci benn droit waaw léegi Sonko bu bokkul est-ce que élection yu jaax yoon dina am non Sonko moom bu bokkul élection mën naa am moom parce que ñun mënuñoo xeex ak état état moo ñu ëpp doole loolu dama koy nangu mais bu bokkutee dañuy xam ne yàlla moo dogal ne war mënta bokk mais damay ñaan Sonko lillahi wa rasul ne moom ah ñu wutal koo xamante moom la àndal ci élection yi ñun ñu ànd ak moom wàcc fi Macky Sall ak mbokkam ñoom ñu jël réew mi ñu continuer liggéeyal Sénégal parce que Sénégal moo ñu amal importance politique bi dafa dañ sonn politique guddi politique bëccëg talu ñu askano Sénégal lépp a ngi ni ne cher ñun dañuy toog fii santagat dimanche di liggéey mënuñu dara te loolu lépp politique la dëkk boo xamante na milliardaires yi ay politique see lan te amuñu ko fii ci ay entreprise ak ay dem liggéey mais nan bàyyi politique bi politique guddi politique bëccëg loolu dafa ñaaw peuple baa ngi bëgg a dee dund baa ngi nii seet defuñu ci dara dimbaliwu ñu nit ñaa ngi dem ay ay fu ñu koy waxati Espagne ak fu ne chaque jour chaque jour chaque jour defuñu ci dara lu mooy saa bu ñu xëyee nekk ci ak politique loolu état bu bon moo ko fi teg. coalition yeewu askan wi ak waa taxaw Sénégal nag nga ko jàng. non coalition yeewu askan wi ak waa taxaw Sénégal coalition boobu man xamoon naa ne bañ koy créer bañ ca dugalee Khalifa Sall lan yàq coalition yeewu askan wi parce que Khalifa Sall moom intérêt am donc la doon xool ci coalition yeewu askan wi ba mu ko ca amee gis nga mu commencé doxiwaat yeneen dox boo xamante ne baaxut ñoom nag instant yaakaar na ñoom jekk naan waaye wallaahi azim laa la waxal yaakaar na moom mooy doon cinquième président Sénégal gi na boppam loolu maa la ko wax fii te bu ñëwaatee dinaa la ko waxaat fii ni Khalifa Sall li mu def fii ko ak boobu moo ko dal ba léegi te moo ko topp ilaa yow mi dem ko moo sa wàcc ndax ay mag yi jëm ñooy doon toog fii ci kanamu ñu ko defoon kooku moom bu yaakaaree ne fi am benn xob nax na boppam bu fekkee jàpp na ne instant nag moom juboo naag Macky Sall wéy candidat la léegi nangam sangam ak noonu mën nañoo jëlee Sonko fi parce que bu Sonko demee da leen doole ñu bëgg a fee Sonko dem seen yëfi bopp nax na boppam du doon candidat du du doon candidat moom Khalifa Sall waaw parce que moom ay dossier am pareegul te moom yaakaar ne moom pare na waaw sala tonton na nga def sant baax tur bi naka la Aliou Ngom waaw dégg ko bëgg a xajee si liste électorale bi génn nañ ko si liste électorale waaw dégg naa ko ci suba waaw mais loolu dañ koy ñaawlu ñun en tant ay sénégalais ñu ne dëkku démocratie la euh, Macky Sall lu ko neex na def mais na xam ne Séné seen yi moom ñun sénégalais yi ñoo ko fi teg foofu mu taxaw foo mu toog mu nekk noonu ñoo ko fi teg euh, ki ñu fay teg bu fiy jógee itam ka koy remplacer ñun sénégalais yi ñoo ko fay teg. moom nag nekkul ne moom moo ñuy tanal ki ñu fay teg ñun sénégalais yi te mënoo nekk ci réew ku ku Sénégal ku ku ñu ndaw ñi décider pour mu toog fi nga mu remplacer la rek nga créer ko problème bone du bopp essa yi moo moo kan ñooy dem élection hmm? fi mu toll nii ñi mu waroon jàkkaarloo yëpp écarté na leen. comme Karim Wade ko fi woon. Khalifa Sall kasaalika ana Iddi léegi ñun Sonko lañ yaakaaroon ñun jeunes yi tey tey ji population bi boo ko xaajoon ñaar boo ko xaajoon ñaar benn xaaj bi Sonko lañ àndal pourquoi pas nga nga bëgg a écarter kooku ci loo xamante ne bu teg woon ci yoon ñu xam ne Sénégal yi xam ne lii yoon la sax ñu xam kon du ñu metti mais ci ay caaxaan loo xam ne tegewut fenn am na lu gën a garaaw yoo xamante lu gën a garaaw le Sonko yoo xamante ne ñi seen dossier ñu ngi fi kenn jéemu ci dara. waaw Khalifa Sall ñoom mën nañu nekk candidat. mën waaw loolu nag mooy mooy ay yëfi caaxaan ndax mënoo wax ne kii dafa jël alalu askan wi ah écarté ko ba du bokk Sonko jëlul askan alalu askan wi. luubalul dara surtout benn sutuwaaye la jotel waaw nga bokk ne kooku du bokk ñii dañuy bokk bu ko sénégalais yi nangoo garaawut de mais du yoon sénégalais yi waruñ nangu loolu pour lan sonko sénégalais la moom la ñu doyloo moom ñii nga xam ne dañoo jëloon dañ ne dañoo jëloon alalu askan wi topp leen boog kii ñu gene ko dëkk bi kii ñu ne du mënatoo bokk ci élection nga dem raxas ñooñu ne dañuy bokkaat kii nga xam ne mosul laal alalu askan wi ah nga ne nga bëgg koo écarter bu fekkee Sénégalais yi nangu na mu appliquer loolu de baax na mais tegawul ci yoon ñun man ànduma ci tey ànduma ci suba. séparation bi dox ci diggante waa coalition Yewwi Askan Wi ak kii lii mu tudd sax taxawu Sénégal nag nga ko jàngat. ñooñu moom seen intérêt la ñuy béyal ñooñu moom ci système bi la waaw système bi Sonko di xeex ñun jéemu Sonko taxuñu ñu koy topp. système bi mu ñu incarné moo tax ñu topp ko mais pas jëmam ñooñu ngay wax wax nag ci système bi lañ bokk seen intérêt personnel la ñuy doxal waaye élection yaa ngi ñëw ku ci génne ci euh, nu mu tuddati ci coalition bi yaakaar ne di nga am dara it da ngay nax sa bopp gars yi Sonko la ñu gëm parce que moo leen wax lu tax ñu gëm ko moo leen présenté moo leen won ñun dafa am lu tax ñuy ñuy ñuy topp nit sa parcours fi nga jaar sa loxo set waaw ñun nag ku ñu dénk suñu réew dañ lay doyloo nee nañ ndenkaan ka woolu Sonko lañu ñu woolu nañu bàyyi ñu dénk ko suñu réew lii ñu def népp dañuy sonal seen bopp ñun moom lañ gëm te na xam ne élection moom bu bëggee élection yu jaar yoon na bàyyi ñëpp bokk mais kii dina bokkee du bokk bëggut bëggut jam bu bëggee jam ci réew mi bëgg a dem demin wu rafet na bàyyi ñëpp ñu bokk. seex na nga maa ngi lay seer bu baax maa ngi si jàmm nga jàngatee euh, Sonko mi xam dañ koo daal di rajo si liste waaw xam nga réew mi day dox ci wàllu bi yoon quoi te yoon su daanee te siisee gun la faw ci yenn yi doo ci mën a bokk ndax kenn ku ne am na ñu fi jaar ku mel ni Karim Wade ak ku mel ni Khalifa Sall te ñoom it yëpp bi leen yoon daanee ñoom dañoo nangu dogal bi yàlla xëy na nag mi ngi ci loxoy yoon instant bi amu defagun procès xëy na nag bu ñu defee procès ci ci diggante bu gaaw-gaaw mën na bokk waaye nag lu amagul procès moom instant bi man gaw ma mu mën bokk daal man moom gaw ma loolu. kon da jàpp ne yoon daal mi ngi doxal yoon. waaw ah Sénégal moom am na yoon moom ndax yoon mi ngi doxal ndax ñu réew mi dañ ne réew yoon la te képp ku fi toog it ëllëg da ngay bëgg a doxal yoon fekkee ne kon nit ñi dañ ne yoon amul Sénégal kon ku toog kon jërul kenn yi dox ndax kon doon ne yoon amu fi waaye yoon am na fi ndax boo xoolee am na ñenn ñoo xam ne bu ne homme politique yi rek ñoom ñoo ne ci kaso yi wala ñoom la ñuy jàppale am na ñoo xam ne ñi ngi ci kaso yi ñoom it te ñooñu dañ leen di war di geesu waaye du am politique ndax ñoom ñoom ñëpp man politiciens yi ñoom ñëpp a yem si man ñoom ñëpp ñoo yem si ñun. waaye nag instant fekk mi ci loxo yoon daal instant bi nan bàyyi ba yoon def liggéeyam daal man daal loolu laa foog. coalition bu Yewwi Askan Wi ak seen séparation ak waa taxaw Sénégal nga ko jànge waaw man ànd boobu moom man jàppoon naa ne du dëggul daal du ànd bu dëggu ndax euh, ku mel ni Barthélémy Dias nekk maire de Dakar grand ville kooku lu mu metti metti soo waxee dëgg ak soo waxul dëgg it xamal ni mënut a jékki di écarter président lu benn ndax am na loo xam ne su ko defeet liggéeyam du dox ba pare xar kaw na mu Ndakaaru ni mu bëgg a mel du ni mel te am na loo xam ne it kenn ku ne ndax ñoom ñëpp a yem kenn ku ne ñoo ngi ànd na waaye kenn ku ne da ngay bay jëmale ci say tànk te ñoom ñëpp benn siège bi la ñuy xëccoo muy pouvoir bi te kenn ku ne da ngay xëj jëmale sa bopp Khalifa Sall boppam bat li mi Dias su dem demoon bay ànd xalifa Sall lay àndal waaw laa jàpp daal c'est parce que. nga xamante ne si moo di Karim Wade ak kii di Khalifa Sall ñoom ay jamono ñu dundoon lii jamono ji nag ñu daal leen di dugalaat ñu bokk ci kujje politique bi daal di écarter Ousmane Sonko. waaw man loolu bi ma ko bi ma ko jàggatee ak seetaan ko diglu discours ministre de l'intérieur bi Karim Wade man man li ma mës a gëm rek loolu laay wax Karim Wade mu mës a lekk alalu réew mi man loolu laa gëm ndax Karim Wade fonction yi yi yi mu amoon yëpp wax dëgg yàlla boo xoolee ci ministère yi mu nekkoon yëpp boo xoolee mosu fa lekk mu kenn état nag moom su la bëggee su bëggee yenn yi ku xam état ni muy doxee xam ne yenn yi bu ko bëggee faaw mu am day metti rek waaye faaw muy amit waaye jàpp naa ne daal ñoom war Karim Wade moom ak Khalifa Sall ñoom ñu war a bokkuloon te Karim war na mën a mën a jiite réew mi réew mi du kenn rek dun ñun duñ jël rek ni kenn ñëpp fi nekk kenn ku ne tey booko ñun ñu ndaw ñi ci xeex di ci sonn tey ku bëgg ku defar Sénégal lañ wax ñun Sénégal chômage bi ñun ñëpp ñu ànd ak Sonko ñu ànd ak Macky Sall ñun ñëpp lay metti tey bu xeex amoon tey ci ñun ñëpp lay metti ndax tey am na réew mën nga xeexe nu ba mu des di di yàq alalu jàmbur wala ngay jël yenn yi di di faat ay bakkan loolu man jàpp naa ne loolu Sénégal moom xar kanam boobu daal Sénégal moomiwul loolu quoi ndax ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndax kay tey ku rey sa morom buñ koy denc ci ci ngay ànd te bu ñuy jaalee dañ lay jaale waale kon dañoo jàpp ne ñun Sénégal ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay am na yenn yoo xam ne bépp bépp politicien ñun waruñu ñu ko nangu ñun di ko defloo ci suñu biir quoi. de la bi Sonko di amal jamono ji ndax yow boo ko doon conseillé la nga ko yow ko wala mu ko. ko tey lekk ak naan nit day lekk ak naan ndax grève de la faim boo ko defee day metti sa côté xëy na yàlla bu ko waree jox pouvoir bi kenn mënu si dara Sonko tey bu war waroon a jot réew mi àdduna bépp marché di ko xeexit yàlla jox na ko ba pare loolu day am waaye dafa war a lekk ak naan xam ne am nattu day yokki màqaama ca bisub xiyaama te nattu waral kerkeraan yi kon nit lu ñëw ci yow rek da nga war a nangu dogalu bi yàlla lii dane destin la ndax moo bëgg te ku bëgg faw nga jànkoonte tek ay metit te loolu moo am kon nag man li ma koy ñaanal mooy mu bàyyi ko te bu ko yàlla waree jox réew mi dina ko ko jox ndax Macky Sall ñun ñu doon xeex ñëpp li doon xeex mooy Macky Sall bañ a toogaat troisième mandat te de yàlla def na nee na du ci toog ñeneen ñi bu ñëwee tey keneen ku fi toog mën na ko bàyyi mu nekk libre bu ëllëgee bu beneen bu ñu posé waatee candidat yàlla jox ko réew mi waaye instant bi daal moom ku ne ci loxo yoon moom.